asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki taal bi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bii di bisu korite di bisu mag bu yàlla barkeel di yëkkati kàddu yi ci tur ak ci ndigalul alxalifatil aam li tariqatina al muridiya al sayx muhammad al muntaqa xafidahu llahu al qadiru al muqtadir wa ayadahu wa nasar wa razaqahu wa satar wa rahima salafahu wa xafar lahu kulli man anaaba ila rabbihi wastaxfar di di kàddu yum jëme ci mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi te li ci jiitu di ndokkeel yépp ci gis bii di wane jeexu ramadaan weer wi nga xam ne yàlla suñ borom moo digle koy woor moo nu dimbale itam ban génn ko ci jàmm nu koy ñaan mu nangul lu siyaamana wa qiyaamana wa saaliha amalina di ko ñaanit mu jéggal ñu rëcc rëcc yi ak njuumte yi gannaaw loolu sëriñ bi mi ngi rafetlu bu baax baax taxawaayu taalibe yi ci biir koor gi ak ci la ko jiitu muy dëggal bu baax seen pasteur ci sëñ bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal qabulan xasanan ci mboolem yëngu yi di leen dénkit tey dénk boppam nu gën a góorlu ci li taxoon yàlla bind nu fii te mooy jaamu ko wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liyabudun kon nan gën a sax ci def ay ndigalam ak moytu ay tereem loolu kat la sëriñ Touba bëgg ci nun te moom la nu sant ijmaalan wa tafsiila ndax mooy sababu ak mucc ëllëg te moom la nu bëggal kon nan ci gën a góorgóorlu te yar ci njaboot bi di leen ñu gën a doy de ko sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla gannaaw jaamu yàlla lañu sëriñ bi sant bu ñuy jaamu yàlla day mel ne koy liggéeyal gannaaw itam lu mu liggéey lool lu ne liggéey bu yàlla gërëm lay doon ak yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ko xam kon liggéeyal ko jaamu yàlla lay doon yàlla nañu ko yàggal liggéeyal rek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 lu mu nekk mu rafet lu mu génn mu ñaaw ba ci xam-xam fa kasratul ilmi bi ilal ada wa taabi nan maa si xam ne àddina dëkkuwaay jaarukaay rekk la di tool yu nuy liggéeyee rek kon du kërug fo du kërug noppul nan suñ kanam waxe suñu borom ji te mooy وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون gannaaw bu yàlla mayee doomu aadama xam-xamu xàmmee jëf-jëf du baax ak ju bon ak kàttanu tànn li ko ci neex mu def dana yonente bi neel nit ñi def leen lu leen soob lu ci waaye tànn def ko moo xam waaye ak lu man xew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 nu war a xam ne kon jël mi jëf du neen fedd dana ko fa sax wax ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara ku def dara lu toll ne la la tuut ci li tuut ci lu baax dana ko gis ku def lu tolloon ci saan bi itam dana ko gis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 yal na nu yàlla boole baal innahu taala mawlaaya wa mawlaakum fa niamal mawla wa niamal nasir wa huwa qaribun wa samihun wa basir wa ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir déynati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh